Bonjour à tous, je m'appelle Bruno Miko Magnin, étudiant équato-guinéen au Sénégal. Ici, nous sommes euh, à, à Mermos, l'endroit qu'on a choisi pour les élections présidentielles de Guinée équatoriale. Ici, les élections sont très bien passées avec une ambiance de beaucoup de normalité, avec une grande concurrence de, citoyens équato-guinéens résidant au Sénégal, là où chacun a choisi, euh, choisi, a exercé son droit de vote pour choisir sont équato-guinéens, a choisi le prochain président de la République réunie équatoriale. Tous les trois candidats sont très bien représentés et les élections sont très bien passées avec beaucoup de normalité, beaucoup de concurrence. Merci beaucoup. Seydou Dia consul euh, Guinée équatoriale à Dakar. waaw tey euh, dañ fi boole ñetti élection présidentielle législative ak euh, locale. donc euh, bi ñu tijjee ba léegi depuis huit heures nit ñaa ngi ñëw di voter te amul benn incidence euh, macha allah waaw. waaw ñu ngi ñëw voter si en masse parce que ñoom sax ñoom dañoo organiser sax seen bopp ñoom boo xoolee par groupe la ñuy ñëw. Euh, groupe bi bu ñëwee bu voté ba pare beneen groupe groupe boobu dem yeneen groupe dem pour ñu bañ fi indi euh, daal euh, insécurité pour aussi mën a gën a dimbali gendarme yi ñu mën a def seen liggéey. non boo xoolee euh, ni ñu at bi ni ñu ko doxalee élection yi boo xoolee rek nga xam ne ne avancé na bu baax ci côté démocratie bi lu tax parce que lépp lu ñuy def. ñëpp partie yëpp dañuy toog ñëpp dañuy toog ñu li ñuy def yëpp dañ ko def ci kanamu ñëpp superviseur yeeg ñëpp daal donc euh, moo tax euh, ni ma gisee nii ni mu commencé nii incha allah xam naa dinañu voté ak jàmm mu jeex ak jàmm incha allah. moo am waaw euh, boo xoolee Dakar ak Sénégal ak dëkk yi ko wër yëpp fii la ñuy voté si. donc euh, benn bureau vote bii rek moo moo fi nekk muy ñi ñi nekk ci ay Mauritanie Mali Gambie ñëpp fii la ñuy voté waaw dañuy ñëw voté si fii tey ci 18 heures lay jeex